may fàttaliwaat rek comme man maa yore mbirum enregistrement domanial fii ci administrativement fii ci communauté Tivaouane Peulh Niaga ma koy fàttaliwaat yoruma commission parce que commission bi am na président commission muy Moli Faye mais administrativement tout ce qui est papier domanial man maa koy lijjanti léegi nag li nga xamante ne mooy wàllum enregistrement yi maanaam bis boo ñëwee ba nga dem dafi sa plan ba pare ba plan bi normal nga. jël plan boobu ak acte de session bi ak photocopie carte d'identité yi ki joxe ak ki ñu jox ak témoin ki joxe ak témoin ki ñu jox boo ñëwee ci bureau bi ñu defal la enregistrement bu la enregistré ba pare taxul nga amagum kayit parce que après commission domaniale bi ñoom dañuy saytu maanaam loolu la ñuy tuddee visite commission domaniale bu ñu la defalee visite ba pare ba ñu ne sa ok kii fu mu am baax na ci lay kayit ba di door a jàll ca conseil ma conseil bi. siégé voté ne ah ñii nii ñëpp ñu lim fii bëgg nañ leen jox kayit ñu ne fan lañ nekk ñu ne ñii ñu ngi ci village Siwane Pël ñu ne ñii ñu ngi ci village ñàgg ba déeni géej ba bënnoo ba léegi nag boo xamee ni nag grande surface la maanaam su ëppee un hectare foofu dañuy préciser ne toolu diw la parce que tool lay doon su boobaa day dugg projet de lotissement maanaam ñu ñu préciser ne ah gars ne ah diw xam nañ ko wala xamuñu ko buñ ko xamulee ñu ñu renvoyé waat loolu ba beneen conseil ba ñu leerlu ci ba mu leer bu ko commission bi nag leeralee ba mu leer ci bopp ñëpp ñu xam ni kii kat toolu diw la moom moo ko moom boobaa ñu jàllale ko ci conseil mu am projet de lotissement defe naa ni noonu la ñuy defee léegi nag su loolu jàllee aussi après bu PV bi jógee fii ba ñu defar ko ba mu normal maire day signé ci PV bi secrétaire municipal signé moom procès verbal am jël kayit boobu PV yi ma yóbbu ko au niveau de la sous-préfecture jox ko ki nga xamante ne moom lañ chargé doon muy monsieur Ngagne Diouf moom tam mu saytu nekkul ni ñun aussi conseil bi lu ñu valider rek day jàll. bu demee foofu Diouf day jël temps vérifier lépp loo xamante ne gis na ni moom am na ci doute wala leeru ko dañuy delloowaat defal ñu benn réquisition mu delloo ñu ko ñun ñu leerlu loolu bu dee tam amuñu ci lu leer ñu renvoyer loolu dindi ko ci PV boobu ñu approuvé PV bi PV bi nag sous préfet moo koy approuvé PV tam bu ñu approuvé wul parce que PV normalement normalement PV 15 jours gannaaw bañ ñu defee conseil ba 15 jours après normal même bu ko texte yi lu mu wax même bu ko sous préfet approuvé wul jàpp nañ ni PV boobu baax na loi moo ko wax bien vrai que nag PV yi fii day tardé day tardé di tourner donc léegi PV bu jógee foofu retour bi bu PV bi ñëwee. defe naa ni après ci la ñuy ci la ñuy jël génne extrait maanaam loolu la ñuy wax extrait ak extrait de délibération maanaam PV bi xam nga ab mool lay doon ci la ñuy extraire benn par benn ñi nga xamante ne ñëw nañ fay seen ordre de recette ordre de yi tamit dafa am ay fourchette maanaam palan yi fii dama ko sote woon sànq plan yi ñu ngi koy defee vingt cinq mille visite commission domaniale bi aussi defe naa ni vingt cinq mille la léegi la nga xamante ne mooy ordre de recette bi fourchette bi defe naa ça varie entre cent mille ba jëm kaw la nga xamante ne moom nga war a fay ci ay hectares loolu defe naa ni loolu la boo fayee gannaaw ba nga fayee ba pare aussi am na beneen bureau boo xamante ne ñoom ñooy defar acte administratif yi maanaam boo fayee day am ordre de recette am quittance ak plan bi ñu jël ko defal la sa extrait de délibération léegi sa acte administratif lañ ko tuddee mais benn la. nga xamante ne léegi ñu joxaat ko maire mu signé joxaat sous préfet mu approuvé yow ci ngay door a jàpp ni yow am nga kayit sur nag la domaine national. Euh, mais fan la ñuy fayee ci yow wala dafa am feneen fu ñuy faye parce que loolu aussi war na mën a leer ba askan bi xam ni bu ñuy duggati ci maire bi di wut kayit fii la ñuy aw. fay bi la dalee ci plan bi dafa am bureau bureau ba boo demee da fa fekk secrétaire ki nga xamante ne mooy géomètre bi. ci moom ngay fayee mu daggal la reçu vingt cinq mille yi la nga xamante ne aussi mooy frais de commission domaniale bi dafa am bureau bureau boobu am na ñu ko jiite boo demee foofu aussi foofu ngay fayee ñu dem visiter la nga fay leen ñu apposer la aussi ci nga ci plan bi la nga xamante ne aussi mooy ordre recette bi mooy quittance sax parce que ordre recette moom mooy bulletin bi rek la nga xamante ne moom mooy quittance bi ki nga xamante ne mooy aana moo nekk ci kaw ci moom ngay fayee mu daggal la quittance kon xaalis bi xaalis boo koy joxee dafa am ñi nga xamante ne ñoom nga ko war a jox mooy ñooñu ma fi lim waaw waaw aana moomu moom mooy régisseur fii ci mairie régisseur mairie parce que mairie boo dem daanaka day am régisseur ñu nag lu tax sax mu ñëw fii parce que yeneen mairie yi ñu wër Sangalkam loolu Jaxaay yépp dañuy dem ba trésor di fay ji foofu te loolu maire dafa gisoon ni fii dafa enclavé dafa metti ma jógee fii dem ba trésor fay nar a ñëwaat fii ci mairie bi day metti ci askan bi ci la ñaanee loolu ñu am fii régisseur à la mairie moom régisseur bi ana la ana ci mom ngay fay bo fayé mu dagal la quittance lu leer nañ wane ni quittance tamit ni ci bind dafa leer quittance su trésor la quittance yi dafa leer nañ bu la ko défaré ba pare bind la nga fay ñu jël kayit bobu ci ngay doora xamni yow légui war nañ la mëna défal ba nga xamante mom nga soxla. askan bi aussi ñi ngi jooy yu kayit yi. mo yéexaayu kayit moy limu wax sank lu ci gëna ci PV lay doon. PV yi mooy moom mooy retardé parce que lu waral loolu sax dafa am saytu ba nga xamante ne sous-préfet ba fi nekkoon en 2000 en 2017 ba mu ñëwee xam nga sous-préfet bu ñu ko affecté ci ci bërëb day def état des lieux loolu moo waraloon léegi retard boobu nag moo ñu topp nii ba tey waaye loolu ñu ngi waxtaan nañ ci ñi ngi xool naka lañ koy jooyantee ba daal kayit yi di gaaw incha allah. Euh, mbokki internet yi kon yéen a ko déggandoo loolu moom moo nekkoon euh, moo nekk seen émission sama commune euh, tey ñu daral koo xamante ni Mouhamed fay la yor li nga xamante ni mooy domanial gis ngeen li fi wax lu am solo la waaye Mouhamed ginnaaw bi ñu génnee foofu dañuy daal di dugg tuuti laal ci carrière politique bi ndax ñi ngi dégg am nañ ay écho que yow sa diggante ak maire neexul de. <laughs> loolu defe naa damay réew a pare Papa Ndiaye question am na solo parce que souvent dama koy dégg defe naa ni li Idrissa Seck waxoon bi paase rek Macky Sall maag maire defe naa ni kon mburu ak soow la maire tout d'abord euh, ginnaaw cër bu ma dénk fii ci mairie bi sama grand frère la te shaque jour daanaka dañuy déggante mën naa ne sax ni ma mel ak moom ci mairie bi kenn melu ko ak moom ci mairie bi ñu bëri nag dañuy réeree mbir maanaam. maag mais maag dara nekkul suñu diggante sama grand frère la sama mère la moom la yàlla dogal tey moom moo jiite mairie bi waaw damay def politique nag waaw maa ngi ci politique bi maa ngi parce que gannaaw balaa may liggéey fii dama doon def politique te ba léegi tam maa ngi def politique te maa ngi ci parti APR bokk naa si ñi nga xamante ne ñooy pilier APR tey ñoo fi indi APR naan ba may dugg APR defe naa ni ñu dugg APR bëriwul parce que bu mu la nee ba Ablaye Wade di di bëgg a toroxal Macky jël ko di ko yóbbu ministère de l' intérieur man bokk naa si étudiants yi jóge woon université dem foofu ba ñu sànni ay lacrymogène donc yàgg naa APR bien vrai que nag damoon naaw benn moment di dem siège ba di dem di ñëw mais gannaaw coow man yàlla dafa bindee mënuma coow lu bëri te boobu jëlaguñu woon nguur bi li may wax ni yàgg na c' était en 2009 ci gannaaw boobu laa ne mën naa toog mais dama doon toog fii ñu may woo Thérèse fay mii moo bàyyi ma fan dama doon woo fii ma ne ko man mun ma déplacé maa ngi pël mais ñun ñoo sumbandoo APR kon yàgg naa politique yàgg naa ci parti bi aussi. Euh, am nañu dégg nañu aussi ci ay écho ñu ne Mouhamed euh, élection locale yii di ñëw euh, day présenté wu. waaw loolu defe naa ku ne am na sañ-sañ ne bëgg naa jiite dara ku ne nag. du Mouhamed Faye dong du kenn képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo fii Tivaouane Peulh am nga sañ-sañ ne kat man am naa ambition jiite mairie bi loolu defe naa ni duñ ko bañal kenn te ci tànk yooyu aussi ci laa nekk am naa ambition jiite bi taxul tamit nga jiite mairie bi waaye nit ki aussi da ngay am ambition doo toog tamit ne man fii rek laa fii rek laa yem donc du ma ko quoi fii rek laa yem defe naa ni Macky Sall tey bu defoon noonu du egsi fii mu egsi bu ñu bu ñu déggee sa candidature ñun daf ñuy daf ñuy ñun daf ñuy jaaxal ku mel ni man daf may jaaxal bu ñu nee Mouhamed Faye euh, moom moo yor mairie te ku xam mairie xam ni ay moyens ñoo koy ñoo yor tey lu mel ni mairie Tivaouane Peulh mën nañu amul ben ressource boo xamante ni tey Mouhamed bu yoroon mairie bi dina fa mën a dina fa tibbe di di di dimbali askan bi te bi sa premier mandat premier mandat nga trok sa cinq ans. mat na yàgg na nga daal di yootu mairie fonds yooyu yëpp ak ak ak coono bi ci am lan lan moo jar loolu nga bëgg a yor mairie Tivaouane waaw xam nga mbir mi day toll foo xamante du doon yow mais askan bi ña nga xamante ne ñoo la wóolu ñoom ñoo la naan ah ñun kat bu ñu sañoon yow nga jiite ñu bu ñu sañoon yow lañu gis koo xamante ne wóolu nañ la. parce que kuy def politique ku ne ñaan nga am ay ndombal tànk te ndombal tànk yooyu du doon dara lu askan bu la wóolu parce que ña la wóolu sax ñoo la gën mën naa ne te la nga xamante ne mooy moyen wàllu moyen élection ñett ñoo ko ñetti mbir maanaam la nga xamante ne mooy électorat bi muy moyen financier bi ak xam-xam ñoom ñoo yore élection te jàpp nañ ni loolu ñu ñàkkul ci ña nga xamante ne maanaam maa ngi ànd ak ñoom ñuy politique am na ci groupe boobu ñoo xamante ne maanaam am nañu les moyens financiers am nañu capacité intellectuelle bi am nañu aussi ay nit ñoo xamante ne suñuy wëllëre lañ suñuy soppe lañ bëgg nañ ñu ñun ñu gis ñu ëllëg ci boppu mairie bi léegi nag. comme ni nga ko sank dafa naa ni da nga njàmbaasaale ni yan ressources après ak mairie nu mu méttee yan ressource nga yoré mairie dafa naa ni wax naa la ko sànq def nañ 6 ans ci mairie bi nekul ni domanial bi rek wala autorisation de construire rek moy jox xaalis mairie comprendre donc mairie amna leneen lo xamante ne mën na doon ressource maanaam sànq euh, muy walum fiscalité tay bo xolé commune bi kenn du fi fay fiscalité Danaka. bo dé xol tamit kenn du fi fay manam lo xamante tay jogé na ci ci ci askan bi dellu ci wat ci mairie bi mu a ci wat ci askan bi bi rek fi ak autorisation de construire bi amuñu aussi benen ressource manam ay ay ay usine ay entreprise comme yenen mairie ni ko ay station kon yenen mairie ni ko comme mairie Kër fa démé par exemple am Auchan am ay station am nañ ay entreprise am sédiment loolu ak recettes yi nga xamante ne seen fiscales yi nga xamante ne ñu ngi koy jëlee ci askan bi loolu moo tax ñoom ñuy mën di def yenn réalisation yi ñun nag man dama jàpp ni su yàlla defoon ma nekk ci boppu mairie bi dina am yoo xamante ne dañ koy joyanti maanaam dañ koy dañ koy dañ koy teg loo xamante ne askan bi danañ ci gis seen bopp ñëpp danañ ci gis seen bopp de telle sorte lépp loo xamante ne namm nañ ko fi def muy éclairage public muy muy muy wàllum yi bien vrai que du doon voirie boutinée parce que loolu état moo ko mën muy muy wàllum école yi loolu yëpp su boobaa mairie bi dina ko mën a def ànd seeg askan bi ba dëkk bi gën a mucc ayib. Euh, Mohamed est-ce que du sa sa candidature buzz la. man damaa jàpp ni li xale yi naan bës ngay wut bës ngay wut parce que man gisuma fenn foo toj ci commune bi foo xamante ni tey boo fa taxawee euh, mën nga fa génnee population bu dee ñaag ñaag xamuñu la. nga dem bënn ba bënn ba xamuñu la ñàgg pël xamuñu la daaru salaam xamuñu la peut-être mën naa ni Tivaouane Peulh rek peut-être boo amee pel ngaka ame, nga ko amee ba pare nga bëgg a yóotu maire yi loolu compliqué. bon jàpp ni peut-être da nga maa réeré mbir mais dama lay bàyyi yow nga def sa micro trottoir li ñu naan micro trottoir nga dugg bu dugg sax Tivaouane Peulh damal bënn ba wala nga dem Kër Meng wala nga dem Déni Géej fu gën sori yooyu comprendre. boo fa demee ngeen leen Mouhamed Faye danañ leen ne diw mooy Mouhamed fay xam nañ ko nii la mel nii ak nii ak nii ak parce que boo nee kenn xamul la wala buzz ngay ut bien vrai que buzz moom soxlu ma buzz parce que buzz mooy koo xamante ne maanaam day ut loo xamante ne après loolu da koy propulser pour benn temps après muy man defe naa ni yàgg naa ci politique bi foo tudd ci commune Mouhamed fay defe naa ni xam nañ ma jàpp naa lool du tam ñëpp la xam du tam ñëpp ma xam. waaye ñu ci gën a bëri ci askan bi xam nañ ma xam nañ lan mooy sama capacité xam nañu lan laa mën ak lan laa mënul rawatina nag rawatina fii Tivaouane Peulh fii ma dëkk defe naa ni boo doxoon deux pas génn léegi ne Mouhamed Faye dañu leen ne Mouhamed Faye lii ak lii ak lii. li ñu jàppee politique bi fii mooy kuy def ay action di di di jàppale nit ñi ci social ku am problème tey ñëw nga fajal ko Mouhamed man gisaguma benn social boo fi def boo xam ne man teg naa ci sama bët. wala benn activité boo xam ne sax tudd nañ la ko nga ñëw en tant que Mouhamed man loolu gisaguma ko. loolu nag bëri na Papa Ndiaye peut-être euh, dañ la ci dul invité mais bëri na lu ñu ma fi tuddee du benn du ñaar organiser nañ ci lu bëree bëri loo xamante ne maanaam ay manifestation lay doon wala ay wala ay wala ay final wala ay ba ci final nawetaan bii passé defe naa ni boo demoon boo boo ci bàyyee xel tuddee nañ ma fa pare ne nañ ma fa daaw aussi parrainé nañ ma. ba ci ba ci ba ci ba ci li nga xamante organisation jeune yi nekk socialement ak ñi nga xamante ne ñooy yi ni yu ñu dem di waxtaan financé ba pare di leen jàppale naka la def ba réussir ba am ay formation naka la def parce que dañoo seetlu ni jigéen ñi dañ leen di jox ñu ko mu mais dañ leen di tàggat maanaam ñu defal leen formation indil leen ñi nga xamante ne ñoo leen di former defal leen aussi papier ñu légal parce que ñu ci gën a bëri légaluñu amuñu kayit amuñu kayitu GIE amuñu kayitu association loolu man Tivaouane Peulh bii peut-être dafa moo ko ñàgg wala feneen waaye Tivaouane Peulh bi ñu ci gën a bëri jigéen ñi ñii maa leen bindal ay projet parce que sama xel màcc na ci loolu comme sànq ni mu ko waxee parce que am naa master en logistique transport en même temps gestion des maîtrise en gestion des entreprises la am aussi damay bind projet jigéen ñi ñu ci gën a bëri ba ci DER bi ba mu ñëwee defe naa ñu ci gën a bëri ci Tivaouane Peulh man maa leen dimbali defar leen ak ay jeunes yi nga xamante ni aussi dafa naan ay projet ñu dem ñu déposer ko fonds FONGIP ñu valider leen ko defe naa ne loolu def naa ko fi ak di dimbali tam socialement nit ñi xam nga social maanaam. Tivaouane Peulh la yam quoi. non yemul Tivaouane Peulh parce que am na ñu dëkk ñaagi tey su ma la xam nga social doo toog naan defal naa diw defal naa diw mais am na ñoo xamante ne su suuf mën naa la wax su suuf bu ñu paree nga dem laaj ñooñu ndax Mouhamed Faye day def social wala def social. mais Mouhamed ñun commune bi nit mënu fee def lu ñu ump ñun fii ci commune bi nit mënu fee def lu ñu ump muy social muy loo def ci biir néeg même biir randal boo fa fekkee nit dimbali ko ñun dañ koy xam. ah mais loolu nga foog loolu nga foog waaw mais tey benn exemple rek laa lay jox parce que man bugguma aussi euh, di def di wax parce que am na ñoo xamante ne tey bëgguñu loolu parce que même boo xoolee ci alxuraan. ñaar la ci yàlla wax maanaam ba ngay joxe mu fës ak ba ngay joxee si suuf man nag je préfère bi may joxee si suuf léegi nag li ci am am na benn boo xamante ne c'est patente parce que loolu damay fier di ci wax maanaam tey boo demee cité Daaru Salaam extension jigéen ñi dañu sonnoon lool rafle lool ci wàllum ndox bañ fa demee ñu joyante ñu ñu ne ñu ah ñun kat lii mooy suñu mëbët bu ngeen ñu ko defalee mooy borne fontaine bu ngeen ñu ko defalee bu SDE bu ngeen ñu ko defalee ñun moo ñu gënal

waxtaan seeg waa SDE ñu def TV bi ñu fay leen ñu dafa leen bond fa tey boo demee bonne fontaine boobu ñu ngi fay rot te noonu lañ ko defe nañ ko aussi fii à Tivaouane Peulh ay teen xamante ne seen teen jeex na amatuñ parce que yaa ma gën a xam ni Tivaouane Peulh ndox bi dajul muy fii muy ñàgg muy fépp donc ay teen yu nga xamante ne waroon nañ leen gasaat ña nekk ca koñ ba sollicité ma ma yëkkati sama xaay jox leen ñu dem gasiwaat ñu dem gasaat teen bi pour que teen bi mën a am ndox parce que ndox c'est vital ndox mënta ñàkk ci dund loolu def nañ ko fi jàppale nañ fi ay nit ñu bëree bëree bëree aussi. Euh, dama am benn bu dee social moom jàppal ni bés ni ki tey moom di am nga problème ndax li may jot ci ay social yoo xamante ne ay koñ la ak ay dëkk. bu ma yor man dinaa la ko dinaa la ko diis euh, euh, ma jox la benn dama am benn jàkk bu ñu ma sas boo xamante ne ay kërtinding la ma bëgg ñu tabaxal ma ko ma ma teg ko ci sa loxo di ko wax ci caméra bi ñoom ñu dégg ko. Ah, loolu defe naa dama ciy sawar. parce que mbirum jàkk man fa ma dëkk ci boppam foofu laay tàmbalee kër gi ñu dëkk fa mu jàkkaarloo paa bi sama pap ci boppam moo fa tabax jàkk te pourtant maa ngi def si jàkk ji paa bi ci boppam sax xamul ni duma ko ko wax ni def naa fi li parce que damay dem ci kenkaayri fa joxe fa ay tonnes ne ko bu paa bi xam ni sax maa ko joxe kon loolu maa ngi koy def te tamit fii ci Tivaouane pël xam nga nag du may bëgg di wax mais boobu foo ma waxaale ko parce que man taalibe Cheikh Ahmadou Bamba la taalibe Murid la sama taaw Cheikh Ahmadou Bamba laa ko tuddee donc fii ci Tivaouane Peulh boo demee ci kër bañ naan kër sëriñ Touba joxe naa fa ton wala sax mu ëpp ko parce que dama ko joxe ba pare mais bugguma sax di feeñ parce que damay dem si kenkaayar bi joxe ne joxal ma imaam bi joxal lii mais ñoom si seen coobare boobu ñoo koy siwal ba ñëpp xam ko te am na tamit beneen jàkk boo xamante ne mi ngi fii ci Tivaouane Peulh boo demee quartier bi ñu naan quartier jaawara bi ñu sollicité nañu dañu soxla ñu dimbali leen maa ngi mbay ñoo fa ànd dem ñu xool jàq ji jàppale nañ leen foofu aussi ciment yu bëree bëri bëri bëri donc loolu nga wax dama ciy sawar parce que ginnaaw lépp liñ ci wax mbirum àdduna la jàq ku ci def sa bopp ko defal dërëm boo ci def defe naa ni yow ci yow lay dellu siwaat loolu suñu borom jàkk boobu am ay crintin defe naa ni man dinaa ci def sama loxo ak ña nga xamante ne aussi ñoom lay àndal danaa leen wax ñu def si loolu day dellu siwaat ci ñun maanaam tiyaaba bañ ci am suñu borom rek moo ko xam dina ko photo yónnee te beug na fi ñu ko waxe ni bala at me jeex au moins mu am resultat euh ñu ñaanal la ca euh, mais amna luma luma ma amna luma déggaat ken yow ak may maire mo nek seen gannaaw di len financer pour élection locale yi di ñew da len di mbubbo wo mais mom mo fi togat lolou dama ko dégg. waaw non la sax xam nga question yi day am solo parce que lu bari ñi kay dégg ci mbedd bi. te tey boo ma ko posé nii ci sa télé bi di Lac Rose TV dinaa ci sa war a tontu defe naa ni maire si boppam boo demee ci moom dina la nekk ma ci ginnaaw Mouhamed nekk ma ci ginnaaw ma Samba wala ci ginnaaw ma Demba defe naa ni euh, li ñu animé ba ñuy def politique loolu moo ñu animé tey ba ñu am santiment ni kat ñun war nañoo mën a jiite mairie bi te boo gisee loolu lu ko waral parce que monsieur le maire dafa toog ba ay jëm jamono mu ne dootul présenté waat. defe naa ni yow loolu réeréewoo ko mbir ba mu waxee loolu tamit waxul ni diw laa fi teg wala diw ñun defe naa ni dañoo teel a jóg jël suñu matuwaay waxtaan ak ña nga xamante ne war nañu waxtaan ak ñoom bi ñu waxtaanee ñu ne ñun kat du toog ba kott ni jëm ñu ne maire diw lañuy tegal wala diw su boobaa bu ñu ci àndulee naka lañuy def day fekk béy wéy na mbuus kon am nañu maturité ci politique parce que am na fu ñu jaar yow loolu umpalewu la donc loolu nag dootuñu dalati moo tax ñu waxtaan ñu ne ñun kat du ñu xaar maire ci dara dañuy wàcc askan bi waxtaan ak ñoom taataan leen seeni ay seen ay mëbët seen ay kàddu lu ñu ci mën a saafara ñu saafara ko lu ci mënul saafara aussi ñun leen lii kat mënuñu ko saafara waaye dinañ dem ñu boole leen ak diw wala ak diw bu leen mënee jàppale mu jàppale defe naa ni nit kuy def politique loolu nga amal sa askan mooy di leen dimbali saa su ne di leen taxaw ci lépp même boo mënulee sax nga jéem bu sottiwul ñu xam ni sottiwul maire nekkul suñu ginnaaw ñun ñoo am suñu volonté bopp maire financé wuñu dërëm loolu dama koy wax fii ci caméra bi dafa naa ni maire bu ko déggee dana xam lu ma wax financé wuñu dërëm suñu xaalisu bopp suñuy propre moyen ak ña nga xamante ne ñu ngi ñuy jàppale ñooñu xaalis boobu noonu moom la ñuy dimbaleewaat askan bi waaw Mouhamed fi ngay tibbee war naa ko mën a xam de. tubbeewu ma fenn parce que joxewum fi lu kenn joxewul. waaw mais mairie boo xamante ne amul xaalis yéen ak sa am ngeen yéen seen salaire est-ce que demee na noonu. non mairie bi du ma ne mairie bi amul xaalis xam nga mairie boo ne amul xaalis da ngay wax loolu neex mairie am na xaalis buy dugg suñu salaire ñi ñu koy fay normal parce que salaire tam lañ fi am gannaaw salaire aussi am nañu suñuy propre business man am na ci lu ma nekkoon ba tey maa ngi koy def depuis 2011.

parce que jàngal nañ ma lan mooy entrepreneuriat tey mun naa former ay jeunes jàngal leen won leen na nga xamante ne moom la ñu war a def ba réussir maanaam ba réussir seen vie ci as tuut ñu dem ba yéeg ci kaw defe naa ni bi may commencé sama poulailler boobu noonu fii ci Tivaouane Peulh euh, étudiant laa woon maa ngi mbay lu muy ñoo ko tàmbali woon ak beneen étudiant kooku léegi sax ma ngi ci wàllum police policier la ñu ñoo tàmbaliwoon woon ay étudiants lañ ñi ngi jàng may nañ leen dajal suñu dara def benn projet ci lañ créé woon suñu GIE GIE bi ba tey mi ngi existé man maa nekkoon président bi ñu def suñu poulailler poulailler boobu tam ba tey mi ngi dund te ginnaaw poulailler boobu aussi damay def sama yeneen business maanaam tooguma maanaam damay def du commerce laa ko mën a tuddee parce que ndaw aussi doo toog rek ne ci lii dong laay yem quoi sa sa sa vie boo ko bëggee limité ci benn affaire da ngay maanaam damay def di commerce ngooñ bii ngay gis nii damay dem di jënd ngooñ dem ma jox ñu bayal ma ma jël ngooñ bi jaayat ko am ci sama bénéfice déwén ma defaat noonu su ma gisee itam loo xamante ne tey war naa ci mën a dugg ma jënd ko ëllëg ma jaay ko à un prix abordable ma am ci sama bénéfice dama koy def defe naa ni képp koo xamante ne yaa ngi ci yaa ngi nekk ah yaa ngi nekk ndaw war nga mën a di. liggéey daal war nga mën a liggéey mais toog rek ne liggéey amul toog teg sa baraada yore say diplôme ne da ngay ne ne da ngay xaar état bi recruter la defe naa ne ñun tey bu ñu xaaroon état bi duñ mës a liggéey waaw. Euh, mais tey boo toogaatee ba si yàgg dégg na maire soxlawaat na deuxième mandat nooy def da ngay wala da ngay sa bopp. non loolu beneen waxtaan la defe naa ni tey buñ ñu toogoon ba maire newaat ni euh, soxlawaat na danañ toog waxtaan mais fu mu tool nii ñun lu ñu décidé. booy que ni soxla nañu mairie bi te incha allahu rabbi mairie bi lañ bëgg a jël te comme ni nga ko waxee parce que bëgg jël mairie bi doo toog doo yaafus da ngay dugg ci dëkk bi fépp foo war a dugg nga dugg fa parce que commune bi dafa yaatu comme ni nga ko waxee dafa yaatu lool donc nag dafay soxla tey nga dugg fépp ñu nga mën a waxtaanal nga waxtaan bien vrai que nag euh, dañu naan ay ndaw ngeen ko bu leen yàqamti dara ak affaire yooyu noonu mais nekkatuñu ay ndaw nekkatuñu ay xale. nekkatuñ ay parce que 18 ans xale weesu 18 ans léegi nag suñu ay morom tey maanaam yore administration bi collectivité territoriale par exemple rek nga un ami et frère tudd turam pas Ndour kooku ñoo classe man moom ak primaire parce que je naa ne jàngiwuma fii faire fa lañ dëkkoon ba 2003 fi depuis 88 xam nga loolu yàgg na fi donc kooku tey moo conseil départemental de la ñu dénkaat encore protact. te moom ñoo waaye léegi kooku bu yoree loolu man ma laaj lu a ndaw muy ñu naan am lañ la denk nga mën ko doxal nga doxal ko te sort askan bi gis ci seen bopp ñëpp gis ci seen bopp waaw. mais est-ce que aussi du parti bi nga bokk ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy décider tête de liste yi. tey yow yaa ngi bokk parti APR maire bi fi ne mi ngi bokk parti APR am na ñeneen yeneen leader coalition la ñëpp nekk parti APR yow nga bëgg a génn euh, doon candidat est-ce que du da ngay fippu wala da nga am lu la metti dama jàpp ne daal yow danga bëgg da nga jóg instant bii ngir demal sa bopp mais pas APR. non du fippu du fippu APR ci laa bokk moom laa lay wax tey fii euh, mën naa ne kenn njëkkuma fi bokk ci APR kon APR ci laa bokk cent pour cent te kenn mënu ma génne aussi ci APR waaye politique da da ngay dem benn moom da ngay am ay choix parce que mënoo toog rek yaa yaafus quoi toog rek ne bon sama lépp dañ ma koy décidel te élection locale bokkul ak élection. législative beaucoup les élection présidentielle élection locale élection gox goxan la askan ba ñoy fal ñoy fal ku len neex légui nak buñ ci tolo nak bu fekkee ni sama parti man jiital nañ ma loolu mooy l'idéal su fekkee ni tam sama parti jitéluma benen alternative amna, dam combat jël mairie bi su boba ma gëna a APR waaw. coalition ngeen def da ngir daanel maire bi fi nekk. fi mom kenn mënu fi gagner sans coalition. Mouhamed kese kese ak groupe am mënuñu gagné waaye am na ñu nga xamante ne ba ñu bu ñu àndeek ñoom daf coalition moom jàpp nañ ni am yaakaar mais nag lépp dañ koy teg ci suñu loxo borom parce que nit ki aussi da ngay sabablu rek mais yàlla mooy dogal léegi nag bu yàlla dogalee nag ñu jël mairie bi di nga gis beneen xar kanam incha allah. Euh, lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo Papa Ndiaye mooy euh, di la gërëm di gërëm sa télé bi Lac bi di wax ni émission yi defe naa ni koy defee nii la. di poser question yi nga xamante mo jara poser ba askan bi wu ba askan bi leerlu Je naa ni tey lépp lu fi lëndëmoon leer na di gërëm ki nga si aussi mooy sama doomu ndey mooy maylum ak képp koo ci li nga xamante ne ci laa nekk mënuma leen lim nag bëri nañ lool ñeneen aussi ñoo suivre ñu xam ni nii la mbir kon di sant di dig